professeur waaw ko ñu ngi rafetlu sa question di ci am mbégte bu baax a baax parce que moment bi dafa nekk moment ba nga xam ne actualité politique bi dafa dominer yu bëri activités yu bëree bëri mais PDS moom après bi ñu déggee par exemple ñu ne Macky sàll eh, ak PDS ànd ba ban jiital ko ci tête de bi frustration yu bëri dafa commencé premièrement muy man ma nekk président section communal bu Nord nekk président de la fédération urbaine de Thiès vraiment j' étais pas content d' accord ma ci parce que li tax d' accord ma ci mooy que ah politique dafa am logique am na la nga xam ne mënta ne boo gisee boo gisee événement yi fi xewoon lépp ak ñu nag Macky Sall li mu def parti bi ak li mu teg Ablaye Wade ak li mu tegoon sunu ba ban koy xeexle ñun ñëpp waaw sunu leader Karim Wade ba mu jaralul lépp ñu def ci ay sacrifice pendant des années des années des années des années ba moment bi mois j'ai vu que ni ndekk tout ça c'était du bluff donc c'est pour cela que à partir de ce moment man awma lenn lu may def ludul dul quitter le parti démocratique sénégalais man ak ñi ma àndal ñëpp voilà. après depuis soixante dix huit ba léegi presque presque cinquante ans de militantisme maa ngi ci biir parti bi maa ngi créer ay mouvement maa ngi taxaw parti bi à Thiès avec les vala bi fi Idriss Seck nekkee kenn ñi mu wul a jóg. ah ñu taxawu parti ba ba yàlla def tey bu perte bi taxawee Thiès ba am dara c'est grace à nous donc mais am na situation boo ko bëggee teg dañuy gisaat sunu bopp parce que ñun Abdoulaye Wade jàngaluñu noonu loolu. donc léegi ak xool na ni ab Abdoulaye Wade am na leneen lu commencé ñëw dès maintenant ñu jëm cee génn balaa loolu di ñëw. non man PDS authentique boobu génn sax au début dama leen doon critiquer mais actuellement j'ai vu que ni ah vraiment ñoom ñoo nekk ci dëgg parce que parti amatul njiit. te kenn la ka nga xam ni ma nga toog fa mu toog di décider o nom du parti ku ko neex mu téye la ku ko neex mu sacr mu sacrifier la waaw parce que dañ dañ jóge si ay renouvellement yu metti presque deux ans ah ñuy jaay ay carte ñun responsable yi ñun na def ay nomination yu bees defaraat beneen PDS bu bees teg ko yaakaar ko fédération yëpp judd mais au dernier moment on a vu que ni parti bi yooyu yëpp mu doon def du dara lu dul Karim moo nekk ci ginnaaw di def lu ko neex ci parti pour écarter ay nit c' est pour cela que renouvellement yooyu boo ko dee xool amul benn sens. waa di nekkul Sénégal mais am na ña am na ña nga xam ne moo leen di manipuler parce que Karim Wade bu fekkoon ne c' était un simple militant du demee nii mais xam ne doomu Ablaye Wade la téye na patrimoine PDS parce que tey fi mu nekk tey boo amoon la naqari tey boo demee permanence dan naan la doo fi dugg parce que ñoo la koy wax mooy que ñu ngi fi Karim Wade teg ci Ndakaarook partout képp ku mer PDS. dana la écarter boo dootu permanence ba dootoo fa dem donc loolu injustice la parce que nit ñi dañ leen war a bàyyi ñu wax seen xalaat Karim Wade moomul parti bi ah même Abla waaw parce que loolu xalaat mosuñu ko xalaat parce que ñu dañ yaakaaroon Karim Wade mooy ñëw bu Karim Wade ñëwee ñu ànd ak moom campagne fédération yi accompagné ko ñu defar suñu liste PDS coalition soppi comme ni ko laa daan defee coalition soppi ñun la ñu soxla woon ab Karim Wade jiite ko ñu def campagne. xam na ne nag parti la ba nga xam ni dafa amoon ay nomination yu bees amaat ay jeunes yu bees am instance yi nga bees ñëpp ñëw nañu ñooñu tamit dañoo amoon yaakaar ci parti bi ñooñu bu ko defee ñu affiché leen ñu commencé liggéeyal parti bi mais fii mu nekk nii xool na ni par exemple parti bi amatul avenir parce que li mu def ak li mu teg ci kaw vraiment nekk na liste ba nga xam ni daal vraiment ñu baree bari comme ñun ni ni ni ñu daal ñu baree la ñuy démissionné parce que liste ba nga xam ko jiite. mi ay ay ay ay Thérèse ay Moussa Sow ah vraiment ak li fi jaar lépp même pas six mois ak li mu def Sénégalais yi ak li mu def PDS ak li mu def Ablaye Wade Ablaye Wade actuellement ma nga day fànn dafa luye ana këram kenn moo ko kan moo hypothéqué këram kan moo ko téye mais tout ça c'est Macky Sall ñu ñëwaat tey naan nu Macky Sall mooy jiite seen liste mais vraiment daal. Euh, noonoon non démission bi dama ko euh, ajuma sama activité politique parce que démission bi dafa tombeek ñu jub ca élection te gis naa ni. càmbar naa euh, candidat yi fi nekk yëpp xool naa ni tamit ña nga xam ne par exemple ñoo war a mën a yóbbu euh, réew mi kanam ma ni damay ànd ak ñoom accompagner leen toogu ma cee kenn waxtaanu ma cee kenn samay décision bopp la ak programme bi ak projet bi non jéngu ma sax déng jéngu ma Pastef parti la rek mais euh, projet bi mu ëpp solo te projet bi ku ci nekk da nga cee gis sa bopp moo tax mënumaa dem fenn furul Pastef waaw jàppale leen ci liggéey bi ñu àndandoo Sénégal am ndam voilà. 50 ni ma ko gisee projet bi dafa war a soxli ko avant deux mille cinquante dans cinq ans nit war nañoo mën a gis la nga xam ni danañ am yaakaar dans dix dans dix dans dans dix ans après encore vraiment danoo xool Sénégal mu tal tal ci yeneen situation mais yu dul situation yi. non non nguur gees bi xam na lépp fi muy taxaw parce que tey mënoon naa demee neneen mais boo déggee le ministre de de de l' éducation nationale ni muy wa wax ak eh, kii yi nga xam ni ñii dañuy defar mais am na la nga xam ni nekkugu fi loolu nag dañ koy dajale ndànk-ndànk di leen ko jox. parce que bu fekkoon ne dafa am la nga xam dafa nekk sur place ñu mën koo jël di leen ko jox kon du am problème mais moo étudiants yi. étudiants yi ñoom xam ñëpp xam na ni seen tempérament ak loolu ñu lépp comprendre nañ leen tamit mais le problème mooy que réew mi dara dafee nekkul léegi nag leen dañuy dajale ndànk-ndànk di leen jox ba ku nekk di ki keesu nguur gi dara neewu fii dañuy wax rek ñi ñooy nekk fii mais keesu nguur gi tout le monde sait que ni dara nekku fi parce que bu fi dara gis li nga xam ni par exemple ni ni ni bi doxee boo xoolee da ngay xam ni dara neewu fi parce que ku ci nekk yaa ngi génn ministère bu ci nekk yaa ngi génn sa def sa déclaration surtout l'éducation l' moom nekk na problème ba nga xam ne moom ñoom ñoo mën a jàppale. non non non non loolu am na ñu koy wax parce que nag man gisewuma noonu parce que nguur tamit dafa am lu ko lu ko tënk dafa am ay charte yu koy téye am ay loi ya nga xam ne ñun ñëpp koy bokk pour ñu mën ci dox parce que Bougane Gueye Dany li mu am Sénégal ah bu fekkoonte ne amul ay loi yu fi nekk ak loolu du ko mën a am parce que mi ngi ak ay immeuble mi ngi ak chaîne de télévision yi mi ngi ak ay ya nga xam ni vraiment loi yi koy aar moo tax loolu mën ne exister moom nag bu demee ba euh, ba ba Kolda ah, di di xëcc di di xëccante que euh, les gendarmes kii moom ci boppam am na problème ba nga xam ne moo ko teg boppam. parce que jomaay kee dugg la jóge moom bu fekkee ne dafa yor ay vivres yu muy joxe ay dimbal yu muy joxe mais ne dem kee dugg jomaay génn kee dugg bu jomaay génnee Bakel mu gi dugg dugg Bakel jar jaar Matam mais daal par force damay dugg fi mu nekk. vraiment loolu défi ba nga xam ne daal vraiment ku koy def ci dëkk ba nga xam ne yoon a fa nekk tamit yoon yoon rek ngay jàkkaar lool. non décision bi dama koo jël fësal ko si sa chaîne war koo fësal si rajo yi war koo fësal fépp man dama am euh, base politique ba nga xam ni ñu ngi topp sama ginnaaw ñun ñëpp dañuy àndandoo waxtaan ak Birame biram ak monsieur le maire waxtaan ak ñëpp ñi nga xam ne moom di jaxate Mamadou Diakhaté di Diakhaté man. ah sunu frère la sunu jarbaat la sunu lépp la waaw xamante nan bu baax parce que ñoo dëkk voilà gis ko du benn problème pour ñu def sunu adhésion léegi nag ñu taxawal sunu mouvement ba nga xam ni ah euh, euh, mouvement bi mu ngi ñëw euh, taxawal nañ ko d'ici à peu près cinq jours. ñaq ñaq ak tedd la waaw léegi am na lu ko waaw mouvement des patriotes les artisans patriotes ñaq tedd waaw mo voilà. non rendez-vous bi mooy que euh, actuellement ñu ngi si jo jo ñu ngi ñu ngi bokk si Jomaay waaw ñu ngi ci coalition euh, jom Pastef bi di xeex pour mu am majorité mécanique di xeex aussi tamit di ko bàyyi xel moom tamit parce que li ñu woon ak askan ñu teg ko ci yoon parce que loolu moo ñu tax a jóge fee te lii tamit moom la ñuy moom la moo nu indi fii projet bi mais projet bi tamit dañ koy jëm a aaral bopp ba dara du ko mën a fagat donc. merci beaucoup jërëjëf.